accepté yow parce que le journaliste que vous êtes yàgg ngaa def chronique di dénoncer euh, les travers de l'État les travers du discours et des actes de Ousmane Sonko et ça vous a valu même beaucoup d'inimitié euh, du côté des partisans de Ousmane Sonko est-ce que mën nga accepter est-ce que le journaliste bi nga doon est-ce que le journaliste aurait accepté qu'un homme politique fasse appel à la jeunesse pour un, pour une résistance pour un combat final te mu leer ñu ne appel à la résistance boobu appel au combat final boobu c'est c'est de la violence c'est pas un combat pacifique est-ce que loolu yow mën nga ko accepter d'un homme politique comme Ousmane Sonko. Euh, Maïmouna nga jàpp ni bu fekkente ni euh, monsieur Ousmane Sonko li mu woote c'est la violence ñëw leen jël ngànnaay. avant 18 heures on a déglu ma déglu ma rek. xam nga li ma bëgg a wax dama koy wax te dafay leer par contre doo ma wax loo li nga bëgg ma wax danga may bàyyi ma wax dama ne. bu fekkente ni monsieur Ousmane Sonko appel bi mu def jeunes yi mooy ñëw leen jël ngànnaay maanaam. prise de pouvoir par la violence par les armes lañu xaar ndax noonu lay deme ñaareel bi état wu Sénégal nga jàpp ni bu fekkent ni am na xeex bu mel noonu bu nit yëkkati ci réew mi nga foog ni état Sénégal du jël responsabilité par contre nañu moytu leen dañu nekk ci politique ñuy dem ci élection présidentielle un homme politique mën na def une déclaration politique. mais Mamadou non déglu ma non déglu ma je ne suis pas en train non may mën a non c'est que en fait quand tu m'interromps comme xam nga boo ma boo ma interrompre non man d'abord je n'ai pas écouté Ousmane Sonko c'est toi qui est en train de lii la wax dama ne bu fekkente ni c'est une déclaration politique ci déclaration politique la yem mën nañ ko comprendre ci homme politique. ci contexte bi. loolu laa la wax ci contexte bi. bu fekkente ni c'est une déclaration consistant à dire nañu jël ay armes di ko xeexe dama ne man jàpp naa ni ma xamee Sénégal xam état wu Sénégal xam nos forces de défence et de sécurité. yoo xamante ni elles ont toujours défendu la République et les institutions de la République man gëm naa ni état dina jël responsabilité mais munoo ma pousser à juger benn affaire boo xamante ni man gisaguma ko. gisaguma ko xam nga sànq da nga ne da nga def bien la différence euh, ne politique du métier. wax ci les politiciens de métier mais xam nga Mamadou dafa am politique dafa am une dure réalité euh, boo xam ne kenn mënu ci échapper le Mamadou Ibra Kane du xaar la commission de l'acte dès que le discours est prononcé euh, vendredi après-demain euh, wala euh, voilà, demain sa chronique doon na doon porter ci loolu pour rappeler les principes fondamentaux yi nga xam ne moom moo lal le fonctionnement d'un état de droit et d'une grande démocratie mais le Mamoudou qui embrasse la politique qui est membre de F24 mu ngi defar discours bi mu ngi sóoraale peut-être les relations de bon voisinage avec Ousmane Sonko mu ngi jël ay pincettes euh, yaa ngi dugg ci politique ce discours dina changer discours Mamoudou Ibra Kane journaliste ak discours Mamoudou Ibra Euh, homme nouvel homme politique du doon benn vous allez inéluctablement changer et vous êtes en train de changer lan nga bëgg ma wax non la base des déclarations que tu m'as rapporté de monsieur Ousmane Sonko parce que vous avez foi vous avez foi à mon conseil non non non jusqu'à <laughs> preuve du contraire je ne peux que croire ci li nga wax Maïmouna xam nga sur la base de li nga ma ne Sonko wax na ko lan nga bëgg ma wax non danga ne mën na am dé bu dee déclaration politique la nañu xaar mais vous connaissez le style de Ousmane Sonko ce ne sont pas des menaces en l'air ce n'est pas une déclaration politique et c'est quelqu'un qui assume ce qu'il dit waaw def na wax na une première fois waxaat na une deuxième fois et loolu ça augure de tensions euh, prochaines dans le dans le dans dans le pays est-ce qu'en démocratie est-ce qu'on même bu fekkee ne moom jàpp na ne injustice lañ ko teg jàpp na ne procès démb bi simulacre la c'était un procès moral bu fekkee ne jàpp na loolu yépp est-ce que euh, créer bouleversement instabilité en impliquant les jeunes est-ce que loolu c'est une solution dans une démocratie comme le Sénégal est-ce que yow Mamadou Ibra Kane war nga côtoyer vous êtes un républicain et vous l'avez montré à plusieurs reprises est-ce que war nga côtoyer dans le cadre politique ñoo xam ne jàpp nañu ne tey il faut régler les choses par le biais d'un combat final. lan mooy combat final. combat final mooy il l'a annoncé nee na Macky Sall dina ma rey mbaa ma rey ko Macky Sall bu ma bëggee euh, faagaagal il devra se salir les ma et ce combat final là dund nañ ko 2021. wax nga ko sànq kan mooy le président de la république du Macky Sall waaw. mais yow propos yooyu noonu déglu ma rek may mun a kàddu yooyu kàddu yooyu nga foog ne njiitu réew mi dégg ko. dégg na ko que jàppoo ni moom yi nga xamante ni sénégalais yi ñoo ko fal mu doon njiitu réew mu am à sa disposition ce qu'on appelle l'état ak état ak li mu ëmb que moom moo ci du moom moo ci war a tontu. mais yow citoyen nga lu tax man ma war a tontu à sa place. citoyen nga homme politique nga. oui observateur nga. oui maintenant. maintenant et, et j'estime que vous êtes soucieux du devenir de ce pays. bu fekkente ni da nga bëgg man ma wax ndax dinaa waxee ni monsieur Ousmane koo waxee mën naa la ne man du ma waxee noonu man du ma ne jàkkaarloog président de la république di ma rey mbaa ma rey la. loolu mën naa ko assumer parce que demain c'est maintenant dama koy fàttali toujours du ñu épouser xalaatu nit pour mu neex ko walla mu naxati ko walla du ñu jëfandikoo moyen de lutte nit nit pour mu neex ko walla mu naxari ko dañu am autonomie de pensée et d'action